salaamaaleykum mbokku téléspectateur Pexxe TV maa ngi leen di jaajëfal comme ni ñu koy defee saasune su ne bis ne rek bon xam ngeen équipe Pexxe TV si li mu mënee ak si li muy dox saa su di dugg si gox-goxaat yi di dajek ñi nga xamante ne nii ñoom wax dëgg yàlla si li ñuy yëngatu ay ndaanaan lañ si bu ñu leen wanee ñooñu noonu da ngeen naan wax dëgg yàlla war nañ leen mën a jàppale pour seen xam-xam bi ñu am mu mun a law ñu mun ko yaatal ba nga xamante ne nii ñi nga xamante ne ñoo siy nekk ñu mun see gis seen bopp ah tey nag Pexxe TV ñëw dox ba dajeeg benn jeune bi nga xamante ni nii wax dëgg yàlla ku gëm boppam ku bëgg lu muy def ku mën lu muy def muy wuyoo si turu Cheikh Mbacke mu nekk ki nga xamante ni nii euh, kuy dawal moto nekk mécanicien nekk jeune bi nga xamante nii man ba mu ko dalay xam ba léegi ba muy nekk xale ba nii nii si loolu laa ko xame xamee mu ko lenn lu dul si loolu noonu donc mu yàgg si def si li nga xamante ne lu lu bare bare bare bare bare lu luy doy waar lay def si moto xam naa ne su ngeen découvrir vidéo bii ni di xam ne sa waay kii nii bu amoon jàppale dëgg-dëgg adduna bi laa wax de adduna dinañ ko dégg tam lay bàyyi nga nuy mbokk téléspectateur Pexxe TV bi ak say am di jàmm waaw may nuyu ñëpp di ziar ñëpp bëgg naa ñëpp waaw di nuyu sama gaay yi ñëpp waa Canada waa fii mi ñëpp nuyu naa ñëpp daal tous les motaristes du Sénégal waaw ñëpp maa ngi leen di béggee ah. waaw samay famille sama yaay sama papa waaw sama famille yëpp maa ngi leen di nuyu waaw di leen wax daal maa leen di ziar bu baax jaajëf seex Mbacke yaakaar naa ne nuyo bi am na solo lool sa début si li nga xamante nii mooy maanaam euh, milieu mécanique bi nga nekk euh, da ko da nga ko da nga ko bëgg nga dugg si wala dañ la ko forcer parce que fii Sénégal da ngay gis ñun ndaw ñi da ngay jékki-jékki suñuy waajur yi forcer ñu li nga xamante ni sax duñ ko bëgg mais dañ si nekk rek affaire yi doon quoi donc ma bëggoon xam yow bon affaire bi bon lan la woon ci yow ko waaw milieu mécanique bi moom ba ma siy dugg moom ci vélo laa commencé quoi lu ma bëgg la woon. parce que man dama yàgg bëgg ay vélo yooyu noonu léegi nag par la suite amoon moins pour am velo léegi si nu ma commencé mooy dajale wut ay cadre velo ay cadre laa doon wut cadre yi yoo xam ne maa ngi ko doon jëndee si gars yi ay ay cadre laa doon taxale jënd ko ay mille après par la suite yóbbu ko si Diop njaga bu nekk si marché fii miij bi affaire yooyu après di ko taxale di dajale di condamné pour am ay janti ay pneu dama si doon sonn balaa ma koy am quoi léegi nag àdduna di dox par la suite ma am di taxale taxale gis ku ko bëgg ma jaay ko après taxalewaat beneen vélo noonu noonu di dox affaire yi jamono di dox may am ay velo affaire yooyu noonu dem par la suite maa ngi tase woon ak ñoom Pape Cabre benn sama benn xarit boo xam ni maa moom ñooy ànd si laa taseeg moom gars yi di def lu naay si Vélo affaire yooyu mu ñëw gis leen ni baay man nii bëgg naa xoolee dama bëgg mën vélo de xam nan laay def bu mun ko affaire yooyu Pape Cabré waaw maa koy remercier nag a bilaahi sama gaayen la après si la ma ni da ñëw atelier waaw affaire yooyu noonu ñu gën a par la suite noonu lay demee ñu dem foofu gars yi di ma woon ay affaire affaire yooyu ay figure ñu nekk si nekk ma commencé di évoluer sama dawal di évoluer par la suite gars yi am ay moto léegi ba gars yi amee moto ma nag aw moto boobu si moto gars yi laa doon jël rek di def ay freestyle affaire yooyu noonu di jàng di jàng di jàng gars yi di gis mooy mën affaire yooyu i sawaay mu ngi commencé di ñëw di affaire yooyu noonu si noonu noonu noonu ñuy dem après ma jënd benn mala malaguti maa ngi ko jënd mais ba mu koy jënd dafa paanoon Malaguti F12 la woon moom laa njëkk am si moto Malaguti Phantom F12 ma jënd ko moom problème mu cylindre ma jënd ko même ba boobu sax après si laa dem ci pap après moom moo ma jëndal silendre si siidi mu nekk Canada après monteel ma ko taal noonu si laa si doon laa débuté waaw ah, di dem di dem di dem affaire yooyu mooy commencé di mën tooj nànk yenn saa yi nga daanu <laughs> jóg <laughs> après nekk ci rek après mu metti lool ma tëw jàpp tëw bàyyi rek après ma jaay Malo Goutti bi temps yooyu nag MBK moo xewoon gars yi MBK lañ doon bëgg man MBK laa mës a bëgg bugguma woon benn machine bu dul MBK noonu mais munu ma woon am benn MBK problème la si man ba si de moyen quoi munu ma woon am MBK léegi ma dem fekk benn MBK boo xam ne dafa daw bu moteur bi bàyyi ma dem jënd ko MBK bi sonal ma sonal ma lool lool. mu jigi dama ko dama ko wanteer mu dem après si noonu ñuy dem di dem di dem jamono di dox après may am ay scooter am ay scooter venant yu normal di commencé di dawal cabré bi dama ko yàgg mos a bëgg affaire freestyle waaw di dawaloon dawalantu di foo dañ doon def comme ay weekend nii boobu ay vélo lañ doon jël dugg si topp tele bi di wër di cabré rek di wër di cabré noonu amoon na tamit ay compétition velo yu ñu doon def après ay waagu ñaay ay jëppal foofu yëpp yàgg nañ fa def ay compétition vélo waaw. say waajur bon euh, dañ la si bàyyi wala dañ la ko doon tere ba nga koy débuté. waaw début bi moom mooy loolu début bi dama doon làqatu di ko def waaw. au début samay waajur xamuñu woon damay def ay freestyle ak yooyu noonu ma koy def di làqatu di làqatu. par la suite nag yenn saa sama rakk yi gis sama statut dem wan ko sama yaay affaire yooyu su ma ñëwee maan ma yow gis naa la ngay jàpp moto yi di ko yëkkati di tóoj affaire yooyu noonu di ma tappeel ko tàppel quoi di ma andil ay peleña affaire yooyu ma ne ko ah mère lii dara nekk si dañuy foo rek li foo góor la affaire yooyu noonu mais fur et à mu dem après waxatuma dara quoi. mosoo ñëw foofu noonu maanaam fekk da ngaa daanu nga xoosu wala nga am benn jafe-jafe sa yaram mu mu mu am soupçon ne kii est-ce que nekkul moto bi moo ko def lii. waaw dama doon ñëw mais man sama sama gaale bu bu ma daan daanu nii sama yaram bi xoosu nii. mun naa toog ay 4 jours sama waa gaale di ko doog a xam de dama koy nëbb ba muy waaj a wér ñu koy doog a xam damay ñëw gaañu su ma gaañoo xoolal bu may dugg sama gaale sax damay yoot laqatu dem sol yére bu gudd affaire yooyu noonu ñëw toog kenn du ko xam bu demee ba affaire bi wér nag ah affaire bu ma solee ci seet rek sama yaay gis ko affaire di wax affaire yooyu noonu. macha allah euh, Cheikh Mbacke li nga wax am na solo lool kon su ma déggee li nga wax mooy maanaam ko yow. da nga nekk ki nga xamante ni da nga ko bëgg ba pare say waajur tamit au début même nanguwuñu mais ba nga leen wane ne lii dama ko bëgg après ñu bàyyi la si ñaanal la si donc mu nekk li nga xamante ni tey jii Sénégal booy xool ñëpp ñoo la xam. mais Cheikh Mbacké euh, comme que amoon nga si benn début bi nga xamante ni xawoon na jafe yooyu noonu tey Cheikh Mbacké euh, euh, est-ce que am na place bi nga xamante ni tey moom moo ko moomal boppam di ci yëngatu di ko doxal comme ni mu waree. waaw waaw instant bii de moom amaguma place comme maanaam comme place yi gars yi am ndax man sama magasin laa jël luwee ko léegi di su ma amee samay scooter fii laa ñëw monter après defar ba mu rafet jaay ak moto yi yëpp waaw si noonu laa nekk ni instant bi mais amaguma magasin mais ñaan naa ko yàlla ko waaw. mécanicien bi ku la ko jàngal. atelier Aminaar Canada foofu lañ nekkoon ñun ñëpp foofu lañ nekkoon. buy liggéey damay woo ma leen di jàppale comme buy buñ bu ko amee naar liggéeyaloo Angers boobu man liggéeyu ma foofu man foofu laa doon fréquenté léegi par la suite su ma koy jàppale den saay mu may wan di ma wan yoon bi may dem te man nag bu ma gisee benn affaire jeex na su ma xësee ba gis nii rek jeex na après dootuma amati benn difficulté si loolu si noonu may gis may gis may topp di xoslu di dem yeneen atelier di di toog di di pratiquer daal sama machine ma jënd samay machine muy paan ma siy nekk di ko defaral sama bopp di kërti kërti loolu moo dem ba tey mu xam ci lu bëri bëri bëri. macha allah kon suma ma déggee li nga xam maanaam loolu lii da nga ko tarbiyu maanaam da nga da nga si dox comme jox ko àqam jox ko euh, fam jox ko li mu li ci war yëpp mu jaral la euh, noor ak nawet pour nga nga mën si xam dara pour nga mën si di jëriñu di si jëriñ ñeneen ak ñeneen moo tax tey ji nga sa def sacrifice yooyu nag ba tey nga egg fii nii donc dañ lay ñaanal bon comme euh, comme ni ngay wax yeneen jeunes yi rek dañ lay ñaanal mu gën a continuer ndax su ma déggee li ngay wax ni mooy maanaam borom borom xel bu yaatu nga koo xamante ni bu gisee benn affaire rek da koy maîtriser loolu don la loolu mayub yàlla la dañ la koy ñaanal te bëri na ay jeunes yi nekk Sénégal fii yi nga xamante ni ñu mel ni euh, Cheikh Mbacke yi nga xamante dañu am mayub yàlla mais duñu am appui mais Cheikh Mbacke euh, ñu dugg fi nga xamante ni mooy maanaam cabre bi donc cabre bi bon naka la la dikkee. waaw cabre bi moom si foofu jeunesse la ma duggee comme ni di dawaloontu si gis gaay jamono jooju fii gars yi ñu doon ay ñoom Maam Mori ay ñoom Maada ñoom Pape affaire yooyu ñoom Ahmed Sène gars yi di cabre léegi nag man nag ma gis gars yi Kabra bi dafa nice dafa neex ba pare man sama passion la ma dem ba de affaire bi dafa nekk passion ci man ma bëgg ko quoi léegi mu jaral ma man ma wut sama scooter di Kabra affaire yooyu di dawalantu mais concentré wu si woon à cent pour cent quoi waaw ndax yenn saa yi dama yenn mun naa Kabra tey balaa ma Kabrawaat mun war na mat ay 2 mois trois mois ndax boobu nekkul woon carrément sama xel mais après fur et ñuy gën a dem. affaire yi di évoluer may gis nag gars yi di dawal ma ni ñoo gars yi li ñuy def nii war naa ko mën quoi fur et à mesure si noonu ñuy dem di dem di dem ba yàlla tey àndi lii mu andi quoi. Euh, gi dégg euh, euh, dégg naa benn jour da nga kaabare maanaam apix ba ba golf hôpital Dalal Jàmm kaabare apix nu mu soree fii nii. waaw loolu Cheikh Mbacke loolu nu mu nekkee est-ce que am na ñeneen ñu ko mën fii nii man man ba may dégg laaj naa ñu nekk ñu ne mu loolu mus ñu ko gis apix ba golf euh, hôpital Dalal Jàmm nga tóoj ko mus wàcce woo affaire donc loolu bon lan la da nga ko entraîné wala dafa nekk li nga xamante ni bon comme li ma ko waxee mayum yàlla la tamit. <laughs> waaw loolu moom mun naa ni mayum yàlla la quoi ndax tamit yombul tamit gis nga teewaan pël fële apix nu mu soree nga yëkkati fa yëkkati fa moto. ba hôpital dala Jàmm ak rond point yëpp da ngay ñëw war ko ak benn pneu loolu yombul quoi a ah, man boog man instant bi si sama génération quoi waaw man. mais mais loolu da nga ko da nga ko wala mosoo ko entraîné da nga jékki-jékki rek yeewu rek ne xaaral ma def ko mun naa ko rek nga def ko. no mosuma ko entraîné moom franchement mosuma ko entraîné c'est que man machine bi su ma xësee ba yëkkati am naa maîtrise totale bi dinaa xam fu ma fu ma ko mën a yóbbu ak fu ma ko mënul yóbbu waaw. loolu moo tax quoi mais moo tax bu mu ko yëkkatee booy wax ñu ànd bu apix laa ko yëkkatee biir apix booy wax affaire yooyu man leen mali bu laa koy wàccee booy di di reetaan di ma kaañoo quoi man leen moto bi pneu kanam bi bu teguwaatee si suuf rond-point mali bu la billaahi macha allah loolu am na solo lool donc mu nekk ki nga xamante ni Cheikh Mbacke ñu taw ak moom waxtaan ak moom si euh, li nga xamante ni si lu muy yëngu mu nekk jeune bi nga xamante ni wax dëgg yàlla ku gëm lu muy def ku bëgg lu muy def mu bëri ay jeune tamit yu mel ni moom ñi xamante ni ñu ngi fii nii mais maanaam dañoo amul jàppale mais Cheikh tey jii est-ce que euh, am nga. Euh, benn tournoi bi nga xamante ni wala am na ay compétition yi nga xamante ni ñu ngi koy organiser fii nii si Sénégal yow nga mës si participer. waaw compétition yi course la doon course course Sinja mooy te mu ngi amee Sinja au début stade amitié la doon am affaire yooyu léegi après ay xeex moo ko doon yàq ak yooyu léegi ñu jël ko yóbbu ko Sinja Sinja fee circuit Dakar Baobab waaw mais mus naa fa participer ay compétition ba am na yu ma fa gañe am na fa ay compétition yu ma fa gañe yan compétition gañe naa fa ay compétition eh, kii course max deux roues bi mujjee am gañe naa ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ni waaw maa ko gañee ah, yaakaar naa ne am na solo lool mais course yi bu leen si daan gañee lan ngeen si daan am lan ngeen si daan am waaw ah, course yi moom metti na trop trop trop trop ma si profito di di si woowaale ñëpp waaw metti na trop ñun course yi commencement bi préparation bi métti na doo nelaw da ngay sonn pour nga yóbbu sa AG foofu problème la boo demee foofu pour nga dugg problème la boo duggee ah da am problème si côté yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. ñoo koy organiser. bëri na ñu koy organiser am na am na ñaari kii yi fi nekk euh, waa Horizon ak waa Car Rapide Prestige ñoom ñooy organiser course yi quoi waaw mais métti na si ñun trop trop trop trop. yéen dawalkat yi. ñun dawalkat yi métti na si ñun trop trop vraiment. jafe-jafe ngeen si am. dañ ciy am jafe-jafe yu métti commencement bi ba fin lépp coono la. mais tey boo ko jëlee li moo lan nga si gagné quoi loo xamante ni dina dina tax nga fàtte coono bi. Ah, fii kay bàyyi boo ko gañee da ngay da da ngay gën a am coono barki yàlla. lan nga lan ngay lan ngay dajee coono ba pare ko di gën a dajaat coono. wallaahi boo ko gagné boo ko gagné yow li nga li nga investir yow ak sa coono xaaj bi xaajaat bi doo ko ci am. billaahi ay trophée lañ lay jox benn coupe waaw man man am na am na boo xam ni gagné naa ñaari catégorie ah. bu si nekk casque lañ ma jox catégorie kase kase casque. ñaata participants ñoo si nekkoon. bëri na laa illa day day fees ba pare ay groupe groupe lañ koy def bëri na barki yàlla métti na trop vraiment. son loolu loolu loolu man yaakaar naa ne nekk na li nga xamante ni nii bon lu ñu war a lu ñu war a waxtaane la parce que euh, nga dajale ay jeunes dajale ay ndaw organiser leen benn affaire man yaakaar naa ne même bu fekkee tamit participation bi ñoom seen passion la sax bëgg nañ ko sax ah, war na mën a nekk li nga xamante ni bu ñuy gañee dara mu nekk li nga xam dina tax sax ñu fàtte seen coono ndax yaakaar naa ni euh, nasaraan yi nga xamante ni ñoom ñu ngi organiser yi mel nii ay tournois donc ñoom dinañ ko def benn façon organisation bi nga xamante ni bon yaakaar naa ni ku ko gañe dina am lu bari li nga xamante nii mooy maanaam dina ko ci am loolu ñu ñu ngi jot xibaar yooyu noonu donc ñu mel nii dañ leen war a encourager gën leen dooleel pour à ce ñoom tamit ah ñu mën a egg benn niveau bi Cheikh Mbacke euh, su ma jugee foofu noonu damay naan hmm, cascade fii musul am tournoi bi donc tey boo gisee euh, boo seetaan si tele bi nasaraan yi di dawal moto di course di cascade yow lan nga yëg sa yaram waaw fii moom mooy loolu mosul am cascade mais man bu ma koy seetaan si YouTube wala yooyu noonu waaw man daf may daf may yóbbu beneen level quoi ndax daf dama ko bëgg quoi su may gis su may damay seetaan ay course ay ñoom Marquez ay ñoom Rossi mais mais damay damay nekk beneen monde quoi dama ko bëgg quoi. ban ban ban ban ban rêve ngay am. waaw ah, rêve sama moom mooy loolu quoi nekk. waaw. da ngeen bëgg bokk ak ñoom course euh, euh, kii yoon bi wala. billaahi damay damay bëgg rek nekk si si ñoom ah. di ko ñaaxante ak ñoom ah. mooy loolu mais bon yàlla baax na ko quoi. boo leen di gis da ngay sawar da am envie boo dem ñàkkante ak ñoom mais bon bon moyens du fi du ko mateek yooyu noonu bon lan nga gis ne tey jii nii bon Cheikh Mbacké boo ko amoon maanaam dina mën a yóbbu maanaam cascade fii nii si Sénégal fu sore sore si àdduna bi. lan gis tey ji boo ko amoon. waaw cascade moom lépp moom moyen la sport mécanique sax laay wax ak cascade ak lépp moyen la ndax moyen moo ko yor ndax machine bi ngay dawal dafa cher waaw machine bi dafa cher ba pare en plus mooy loolu da ngay da ngay def ay séance d'entraînement waaw da ngay lu si bëri daal da nga war a am combinaison yu baax pour boo en cas boo daanoo dara du la dal dafa metti daal te moto booy. booy moto yi dafa cher da nga koy jël di ko dawal parce que lan am na yenn risques yoo xam ne doo ko si ñemee jël ndax bu yàqoo après. équipement moo fi mooy manqué ko. équipement yi manqué na moyen bi manqué na. ak staff bi. waaw ak staf bi lépp lépp. boo amoon ay staff bu baax am ay moyens ñu teg ko fi est-ce que tey bon à l'échelle dinañ mën a dégg Cheikh Mbacké. Ah, waaw c'est normal kay dañ dañ da lay dégg ndax ba fii fii ku ñemee dañ laa déy fii gars yi fii kii yëpp dañ leen a jàppale waaw. kon ragaloo yooyu ragaloo ñoom Marquez yooyu nga wax. non ñooñu ragaloo ma leen dañoo dañoo bokk da sekk dañoo bokkul quoi ndax lu tax bokkuñu ñooñu seen bi ñuy nekk xale ba nu ñuy nekk mag yëpp ñu ngi si. ba pare am nañ sponsor am nañ moyen bi daal mais ñun ñu ñun fii instant bi ñun amuñu dara <laughs> ñoo ngi nii waaw. parce que euh, maanaam amul ay nit yoo xam ne gëm nañ ne lii nii mën ngeen si gagné dara te mën ngeen si yóbbu turu Sénégal fa sori quoi fii si Sénégal amuñu am gëm-gëm boobu noonu. waaw fii Sénégal fii fii gars yi amuñu gëm-gëm bi ndax xamul sax yow da nga leen di romb di daaw ah booy mooy loolu dañuy nekk fi di sonal nit ñi rek duñ dem fenn di la di la wax yoo xam ne daal mooy loolu daal lu nekk ngay dégg ay ah kii dañuy fontoo ay xamul daraak ay yenn saa nga romb nit sax mun la yàlla nga daanu barki yàlla. wala nga romb nit mu ne ah moto bi moom ko da ko àbb yu nekk ngay dégg daal fii daal dañu sonn quoi vraiment mais yàlla baax na ñu ngi si di takkale mooy loolu affaire yi ñu ngi dem ndànk-ndànk waaw te bés bés bu ñu demee ba am ay sponsor tamit ñu jàppale après beneen changement dina gën a am jaajëf Cheikh Mbacke man yaakaar naa ne li mu wax am na sololo te lu mu wax nekk na li nga xamante ne ni maanaam euh, côté gëm-gëm lay wax ak côté staff ak côté jàppale yaakaar naa ne nit lu mu gëm lu ne rek man yaakaar naa ne bu ñu ko si doolelee fekk si ko si rek mën na ci am lu ne te Cheikh Mbacke ku ko dégg Sénégal ñëpp ñu bëri xam nañ ko amul ku xamul Cheikh Mbacke si côté cascade ak si côté dawal moto maanaam mu nekk si ki nga xamante ni benn exemple nekk si kenn ki nga xam si ku mën lu muy def donc Cheikh Mbacke su ma lu wax mooy maanaam comme tey bu amoon ñu la jàppale dëgg ñi nga xamante ne ñu ngi leen di dégg ñu nekk si àdduna bi di dawal moto yow dinañ la dégg te loolu gëm-gëmam la te lu mën a nekk la mais comme li muy wax rek Sénégal fii booy dawal moto di cascade di toj wala def yenn affaires yi nit ñi bon dañuy naan su bokkuma la <laughs> te alors que nit ñi bokkuñu bëgg-bëgg ku nekk ak sa bëgg-bëgg donc nit ki foo ko fekkee si bëgg-bëggam rek ñaanal ko si rek mais bu ko si ñaanal safaan ndax tey ji boo xool ñun ak ñeneen ñi loolu la ñu rawante dañuy kenn ki nga xamante ni day am lu mu bëgg ñu bëri ñëw fekk si ko dooleel ko si mais fii da ngay bëgg dara mais kii mënul ñëw ne euh, bëgg cascade di dawal di cascade di tóoj yow nga ko par force lii nii waroo ko def da nga war a bàyyi li ndax baaxul di ko si ñaanal lu bon lu bon bu ko si dalee après nga dem naan ko massa esprit boobu mentalité boobu nañ ko war a dindi si ñun ñun sénégalais yi ñun africains yi nit ki si lu mu ne nañ ko si xool fexe naka la ko si naka lañ ko si appuyer ba mu avancer donc Cheikh Mbacke li nga wax ni ñu bëri ñu ngi koy dund du yow kese ñu bëri ñu ngi koy dund Sénégal fii dafa nekk dëkk bi nga xamante ni dafa naqaree dundee dafa naqaree waxee mais ñun dañ lay encouragé di la wax ni bon euh, incha allah dina baax jàppal rek mais tey Cheikh Mbacke boo doon wax euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk si milieu bi kàddu bi nga xamante ni war nañ ci bàyyi xel pour mën a jàppale ñiy dawal moto lan lay doon. waaw li may wax moom si gars yi nekk si millier bi tamit ñun seeni frère lañ seeni raq lañ waaw te xam nga affaire yi ñun ñëpp la quoi ñun ñëpp la te bëri na ay bikers fii nekkul man kase bëri na te soxla nañ jàppal quoi ndimbal tamit soxla ñëpp ñun ñëpp soxla nañ ku jàppale ndax suñ ñu jàppale woon dinañ weesu niveau bi instant bi kon leneen la ñuy wax. waaw di kuréel kuréel boo xamante ne ni ay fédération la walla ay organisation yu nekk fii nii. non instant bi moom amuñu fédération de man de dégguma ko fédération moto moom dégguma ko ndax doon naa dégg fan yee gars yi dañ ciy dox affaire yooyu mais déggaatuma si dara ah. mais gars yi moom au début dañuy mën nañ wax nii rek mais après ku si nekk da ngay toog croiser les loolu la quoi. mais siy dox. Ah, ñu ngi si ñu ngi si de te bëgg nañ ko tamit te buñ bu ñu amoon suñu fédération dinañu permettre lu bëri dinañ ko dinañ ko mun a am quoi dinañ mun a am lu bëri ndax lépp voilà lépp ñaax fédération nag tamit si la quoi waaw. façon kaabare yi ngay def tey si tali bi <laughs> dégg naa am nga benn problème ak benn taximan si <laughs> si si kaabare bi si kaabare bi si kaw tali beeg yooyu noonu quoi donc kaabare bi nga doon def si kaw tali bi di tooj di bàyyi say loxo xam nga ak moto bi nu mu diisee gi yooyu noonu est-ce que mën nga ñu si ñëwaatal nga nga nga toj benn par benn. waaw affaire yi moom da pratiquer rek ndax kaabare bi bu si nekk dafa am yoon dafa am yoon boo koy defee waaw mun nga kaabare. bàyyi sa benn loxo lépp ay ay ay figure la quoi caabré tëb taxaw ci sel bi caabré bàyyi sa loxo sa ñaari loxo yi yooyu yëpp ay figure la quoi tamit ni ko ci yooyu yëpp da koy pratiquer da nga koy jàng nekkul lu nga xam ne da koy tëb tëb rek mun ko danga koy jàng waaw wàllum taximaan bi moom taximaan bi moom dañoo romb ñu dem suñu yoon mu romb ñu xool ni ba mu neex di ñu wax lu ko neex te mënoon na ñàkk quoi ndax ñun ñoo bokk tali bi waaw tali moom buñ pour man tali bi xatul quoi bu ñu yaatalee xoli mooy loolu daal ndax tey jii taximaan bi amaana ñun tooñu ñu ko munoon na dem sérieusement sans autant que mu am ñun benn problème mais deful loolu dafa ñëw ba si ñun mu wàññi wax ñu lu ko neex avancé te loolu mun na mun mun na ñàkk. mun leen wax la leen wax. waaye da dafa ñu bu sànni ñu loxo waaye doo doon topp fële affaire yooyu noonu te yooyu mënoon na ñaax quoi mënoon na dem sérieusement. Ah, li ngeen doon toj moo ko moo ko neexul. waaw mais xëy na xaw ma xam naa looloo ko naqari tamit mais mooy loolu quoi rafetul quoi. mooy li nga doon wax léegi léegi xol yi ñoo xat quoi. waaw xol yi ñoo xat te aussi tamit may wax sama mbokk baay kër yëpp ma leen di sensibiliser aw si casque yi quoi ñu gën a respecter casque yi ndax xam nga rek. bëri na ay choc yi am mooy loolu te ñu naan borom dëru yi dëru boo si nekkee mooy loolu milieu dëru dafa metti ñun ñu ngi siy dund lu métti métti lu nekk la ñuy dégg lu nekk la ñuy yàq suñu der te alors que ñun passion bi lañ am te dañoo bëgg dëru ñun def lu bon taxu ñoo jug ci dëru waaw may lancer appel tamit ñi nga xam ne ñooy jël dëru di si def naka sudul noonu maa leen ñaan ñu bàyyi loolu waaw tamit ñu gën a respecté yi di sol casque waaw bu nekkee si tali bi ñu teg ko ci yoon prudence si bi mooy loolu noonu waaw. yéen ak yi dégg naa borom oto yi duñ leen may dara de. non dafa metti dafa metti surtout ak ak jeune cag-cag yi léegi ak borom taximaan yi metti na te tamit taximaan yeeg ñooñu suñuy frère lañ. waaw nañ ñu yaatal si tali bi ñu yaatal leen ku si nekk teg ko ci yoon waaw ku si nekk dem tranquillement ñu bañ a am benn réero wala yu demee noonu. jaajëf waay jaajëf Cheikh Mbacke un jeune bi nga xamante ni boo déggee lu mu wax nga xam ne kii ku dal la ku ñàkk euh, problème koo xamante nii ku yaatu la ku yaatal xolam la ndax boo déggee lu muy terminé fii nii nga xam ne wax dëgg yàlla ñu bëri bu ñu meloon ni moom nekk ci kaw tali man yaakaar naa kon jafe-jafe du am yow taximaan nga yow yaa ngi dawal kalandoo wala yaa ngi dawal njaga njaay wala yaa ngi dawal 4-4 loo mënti yor boo gisee borom dóoru yoo xamal ne yow yaa gën a nekk en sécurité donc loo mën a def pour moytu ko pour mu bañ a gaañu wala pour nga bañ ko gaañ loolu def ko parce que yaakaar ni ñëpp ay frère lañ comme ni mu wax rek ñu ñëpp ay frère lañ te ñun ñëpp ñoo bokk donc nañ yaatal xool yi rek bu ñu ko defee mooy loolu man yaakaar naa ne boo gisee ni buy tooj sax loolu war na nga ko mën a admirer sax nga jël sa téléphone sax filmer ko wala nga taxaw fenn xool nga admirer ko nga ñaanal ko si loolu maanaam nekkul lu comme lu mu wax rek Cheikh Mbacké lu wax nekkul ñoom juguñu si pour def bon wala pour xalaat ci lu bon donte nag du ñëpp a yem mais yow mi nga xam ne yow yaa nekk en sécurité yaa gën a nekk en sécurité yaatalal sa xool nga muñ nga fexe xool naka ngay def ba moytu ñi nga xamante ñoom ñoo yor deux ngeen dimbali leen ngeen jàppale leen. donc euh, Cheikh Mbacké tey amoon naa mbégte ak kontaan te waxtaan ak yow si li nga xamante ni mooy maanaam si li nga yëngatu ah sa tóoj moom dañ la siy ñaanal sa cascade bi Cheikh Mbacké sa kàddu bu mujj. waaw sama kàddu gu mujj moom maa ngi ziar ñëpp maa ngi bëgge ñëpp di nuyu sama yaay. ak sama papa ñoom ñëpp maa ngi leen di ziare ak sama bàjjan sama turandoo ñoom ñëpp maa leen ndax dañ may dañ may jàppale quoi sama turandoo daf may woo di ma si wax di ma conseil daal sama bàjjan noonu ak samay am di jàmm maa leen di bégee waa Canada bi géejawaay bi yëpp daal man moom wax dëgg yàlla moom nitu ñëpp laa quoi fépp fu ma fa demee ñëpp laay kafal foo reeral fépp Dakar fépp maa ngi bëggee gaa yëpp Canada cat ba cat ñoom Pape Ahmed seen Ibou Laye Modou Fall Sora sama gaa yi nekk foofu yëpp cat ba cat ay ñoom Seex Wade ñëpp bëggee naa leen te mooy loolu affaire dina gën a neex incha allah. jaajëf Cheikh Mbacke ñu ngi lay jox euh, dig daja xam naa beneen yoon di leen jaajëfal yeen ñi nga xam te yéen a doon suivre chaîne bi nga xamante nii moom mooy euh, Pexxe TV comme ni mu leen ko waxee rek ñun nii lañuy def fexe xool naka la ñuy def ba dajeek ñenn ñi nga xamante ni ñu ngi si gox bi amal njëriñ Sénégal euh, di def lu am solo si réew bi ñu war leen wane war leen mën a jàppale ñun dinañ dem rencontre bi euh, di leen jox dig daje bi beneen jaa ngeen jëf